ahousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentem bu tedd ba yeesal sunu pas-pas cheikhul xaddim ñu ngi nuyu bu baax a baax di ziyaare bu baax mm, sunu kilifa yi fi fekk si sunu jëwriñ yi ginnaaw ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wer ko ñaanal sëriñ Seex Jëmm Faal ak mboolem njabootu cheikhul xaddim gi di jiital ab nuyoo akub ziyaare ci sëriñ Afia Bousso di ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram ak mbooleem jëwriñam yi mu àndal ci liggéey bi di ziyaare bu baax tamit kilifa yu baax yi nga xamante ni ñoom lañ si fekk ci sëñ Abdou Lahat euh, Bousso ak sëñ Abdou Lahat ak sunu kilifa yu baax yi fi fekk euh, ak euh, jëwriñ yi nga xamante ni tamit ñoom lañ bàyyi ca Mali mu ci jiitalee sëriñ maam Balla Mbàkke ak soxna maam Faati di ziyaare bu baax tamit sëñ Tàkku Njaay miy jëwriñu Matlabul Fawzeyni di bu baax tamit jëwriñ yi nga xamante ni ñoo fa nekk te yor fa liggéey Serigne Touba yi ah, ñu ñëw tey ji nag fii ci barab bu sell bi eh, indi liggéeyub daayira mu xaddimatul xidma bu Mali ànd kook suñuy jëwriñ ci mel ni jëwriñ Serigne Ndiaga Niang nga xamante ni moom moo jiite mboolem liggéeyub lu ñuy wax liggéeyub Touba fële ca Touba Assey yi ak sunu jëwriñ sëñ Cheikh ah, Tall moom tamit ku ne xam ko ci liggéey liggéeyub daayira Muxaddamatul Xidma ak Touba ci kanam ak mboolem liggéey yu ni def ca Mali ñu ànd ak ñoom teewal mboolem waa Mali gi yëpp di ziare tamit bu baax sëñ Assane Diop Xidma di ziare tamit sëñ Mafari Ndiaye ñooy nga xamante ni ñooy suñuy jëwriñ ci diaspora bi wax dëgg yàlla saa su nekk di soññi ci liggéey bi liggéey bi nag moom daanaka nii rek lañ koy defee saa su nekk mooy lum néew ko bari ñu dajale ko. ñëw teew fii ci suñu kilifa teg ko seen loxo tàllal tamit suñu loxo ngir ñu ñaanal ñu ngir ñu yokk uh, muri yi nag uh, seenu yóbbante mooy ñu ñaanal leen ndax uh, liggéey bi li mu néew ko bari sàkkuwun ci dara lu dul ngërëmul sëriñ Touba loolu nag suñ ñëwee fii ci barabu sell bi ñëw tamit ci weeru koor gi ci bis bu njëkk bi yëkkati àddiyay Mali jëmale ko ci koor gi am nañ ci rafet njot Euh, kon ñi ngi ñaan ci barkeb Seexul Xaddim wax ji du gudd ndax xaj na xol daa sedd moo tax wax ji du gudd te coono yi bari na comme kilifa yaa ngi toog euh, dañ leen di jox kàddu gi euh, sëñ seex wala sëñ Njaga ci mën a mën a dolli ay kàddu rek bu ko defee ñu ñu ñu ñu jox kilifa yi bismillahi rahmaani rahim la xawla wala xawata illa billahi aliyyil azim ñi ngi siyaare mbokki taalibe yi nu fekk fii yëpp ak mbokki jullit yi eh, di ñaan sunu boroom yàggal leen fi ñu yàgg leen fee fekk yàgg fee ñëw ci barke Seexul Xadim di am mbégte lool ci liggéey bi nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma nga xam ne foo nekk ci àdduna bi rek bu la ci Sëñ Tuubaa boolee mën nga ko di ñaan mu yokk di soññ di soññ suñu bopp di soññaat suñu jëwriñ ñi nekk ba ma ko buñ ci tuddee sëñ maam Góor Ja sëriñ Fallou sëñ Fallou Thiam sëñ mbay ay jàmbaar lañ lool ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm foofee ñu nekk di leen xam ne sëñ Tuubaa mu xamul dëkk bu naqari moom gëm rek la xam moom dëkk bu naqari mu xamu ko kon nag ñu ngi leen di soññu ci ñu gën a yokk Pastef bi gën yokk jéego yi ba bu ñuy ñëwaat. fii addee ji mën a dolli ku baax a baax a baax a baax ngi jëm Sëñ Tuubaa ñu ngi siyaare ñëpp di gërëm ñëpp di am xol bu sedd guy di ñaan ñëwaat fi déwén fekkaat fi jataay bi nii barke Sëñ Tuubaa tam yokk lool jërë ngeen jëf sëñ Jaga te ni ñoom ñoo yor liggéey bi fi mu ne nii ci mel ni Serigne Mbaye Thiam di borom pas-pas di vice président daayira Muxaddamatul Xidma ak tàbbeem ci liggéey bi rek maanaam pas-pas ba mu amoon ndax bis ba mu déggee liggéey daayira Muxaddamatul Xidma li mu njëkk a def mooy yëkkate otoom daal di joxe daan ni sama oto bii de fépp fu mu daayira Muxaddamatul Xidma jëm ba léegi oto ba fasu daayira Muxaddamatul Xidma lañ ko tuddee pas-pas boobu nag la ci am ba bi ma fa jógee ñu jox ko vice président mu ci def liggéey bu am solo moo tax wax dëgg yàlla fu liggéey bi yàgg rek moom ak jëwriñ mu àndal ñoom ñoo koy jëf ku ci mel ni sëñ maam góor ja ni nga ko lima léegi seen jiili Mbaw Abdou Khader mi nga xamante ni mooy trésorier liggéey bi ak jëwriñ ñin ko àndal section yi nga xamante ni tamit ñu ngi nekk Mali xamante ni ñoom seen liggéey du lu dul dajale addiye di ko indi ñooñu tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen ziyaare te di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen tawfeex bu baax kàddu yi nag xam naa ni kàddu cant rek la ndax xol daa sedd guy Serigne Ndiaga am naa du ñàkk ay kàddu tamit yoo ci man a dolli comme yow jëwriñ nga te euh, wax dëgg yàlla bu la mbokk yi gisee di leen soxla say kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di siyaar di jéglu baax a baax kàddu gi ñu yëkkati di tàmbalee nuyoo beeg siyaar bi ci sëriñ Muntaxa yàlla na yàlla guddal Seex Jëm Faal di siyaar kilifa yi ñu fekk yëpp di am mbégte ci jotaay bi moo tax duñu mën a kii di sant sëñ maam góor sëñ maam Balla. ñoo ngi leen di siyaar di leen jaajëfal bu baax a baax rek gaa yu baax yi nekk ca Mali ñu ngi leen di leen siyaar di leen gën a soññ rek gën a góorgóorlu ci liggéey bi fii de ku fi teew rek maanaam di nga gën a soññeeku ñun nag maanaam liñ ci gën a soññ moom suñ jëm bopp ji lañuy commencé soññee ndax wax dëgg yàlla am na bis boo xam ne defal nañ ñu fi loo xam ne ñun jëfuñu ko ci daayare bi ndax suñu waajur wàcc na fi keroog bi ma dikkee génn carte bi joxe ko ca morgo fële rek maanaam daa taw fexe loolu ci man daal loolu war naa soññi murit bu nekk waxuma jullit bu nekk war na koo soññi loolu rek daa daa dalum xel daal ndax taxawaay ñu ci taxaw ñun daal mun ñoo wax waaw ju bari ñoo ngi leen jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Xaadimu Rasuul eh, di am mbégte bu baax a baax di dalal sunu mbokk yi nga xam ne waa daayira Xidma bu Mali ci njiitul sëriñ Maam Balla Gueye ak mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal muy sëriñ Njaga ñan ak sëriñ Cheikh Tall di jël nuyoo daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiye Buso euh, mu teg ko ci seen loxo ak kilifa yi nga xam ne ñoom la wuutal fii ngir ñu teertu leen ngir indi ngeen xam ne leen ko indi seen addiya euh, daa ko def mu jëm si ci wàllu koor gi muy liggéey Moukhaddamatoul Khidma Mali depuis bi mu sosoo ba léegi nag ñu ngeen koy defee muy koor gi muy màggal kon ñu ngi jël nu bu sell di ko teg ci yéen euh, ci turu it ñi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di kilifa yi daayira Moukhaddamatoul Khidma muy sëñ Abdoul Ahad Bousso Mamassa muy jiite commission sociale waaye secrétaire euh, bokk ci secrétaire général yi di euh, sëñ Abdoulaye Diop mi ngi fi sëñ Abdou Khadir Niang bokk ci commission sociale sëñ Abdou bu Bousso di responsable communication ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen yóbbante ay nuyoo tamit ci jëwrin yi foofu ci Touba Mali muy sëriñ maam bala Mbàkke ak soxna maam Faati ba ci sëriñ maam Góor Dia ak euh, sëriñ ma Fari mi nga xam ne liggéey bi ci moom la jaar ba tàbbi foofu ak coordinateur diaspora di sëriñ Assane Diop nga xam moom taxawaayam tamit tax na liggéey bi ñëw foofu ci Mali. di nuyu tamit sunu mbokki taalibe yi nekk foofu yëpp ci képp koo xam ne rek yaa ngi participer ci liggéey bi ak jëwrin ju mën a doon ak yoon woo jaar ngir participer ci ba tax daayira bi mën a samp noonu ba dëgër ba at mu jot ñu mën a dajale seeni mbir ak seeni addiya ak jamono ni mu xate ak ni mu lëndeeg ni mu lëndamee waaye taxul lu sunu kilifa gi sëriñ Afee di wax ne Sëriñ Tuubaa moom xamul kiris xamul jamono ju naqari loolu mooy lu wér ndax xol yi dañ koo nangul ko xol yi nangul nag xamul jamono ji naqari ndax jamono fii nga xam ne fii lañ toog muy jumaa ji ak yi fi am yëpp jamono yiñ koy tabax yaakaar naa moo gënoon a metti ndax ndox miñ daa tabaxee jumaa ji rek dañ ko daa garde ngir bañ nit ñi di ko naan loolu kon jamono metti woon na loolu nag kon su fekkee ne jamonoy mbas am na dafa mel ne gis nañ ne taalibe yi ci la gën a takk ngir xam seen digg ak sëriñ bi loolu lépp nag dafay aju ci eh, ki nga xam ne mooy borom pay gi te moo tax ngeen di jëf ñun kat ñun ak yéen ñoo ci yam dañ fee nekk di eh, liggéey ak dajale suñuy addee ñu nit di ko def ci yoonu sëriñ bi ñu gis ne suñ ko yaatalee bokki taalibe yi ak njariñ li fi nekk ñoom it danañ ci mën a jariñu kiy jariñu nag mooy xaadimu rasul mooy mooy liggéey bi kon yàlla nañu yàlla bokk fay ñu tàbbi ci li waxoon ci ku liggéey ci barab bi wala ku liggéey lislaam waxfir li man banaw bina fi wax li man amarahum bi jamia loola bi ñu tabax du caagee ne ko ñaan rek ngir ñuy tabax tabax bi waaye képp koo xam ne def nga fi loo xam ne dafay dundal barab bi dangay dugg ci ñaan googu wa li jamihi man ahanahum ala kon ka leen képp ku leen dimbale ci lu tax liggéey bi nekk foofu Mali mën a mën a mën a tabbi dugg na ci ñaan googu ci darajey wax di xawaaiji lazina daamu fii xidmati wa hablahum maraamu kon loolu it dafay firndeel ne sëriñ bi ñaan na noppi na ci képp koo xam ne da koy liggéeyal mu mu fa fayal mu fay la ci lépp looy bëgg jàppandalit lépp lu jafe ci yow loolu doy na sëkk rawatin nag barab bii ñu koy defee muy jumaa ji nga xam ne moo waxoon ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ digle ci jàpp naa ne jëf sakkane na fu ne waaye ñun taalibe sëriñ Tuubaa yi jëfe fii moo gën a sakkan ci ñun kon nag yàlla ñu sëriñ bi bokk fay te gën boole suñuy xol ci daraja yi ya rabbi ci xalil muridina maha fi xisnikal adini wa samlaj maha ni mu ko ñaane mooy loolu rek sëriñ Tuubaa dong moonu boole ka nekk Maleek Côte d'Ivoire ak Gabon fu nekk gis nga benn bëgg-bëgg lañ am la ñu xool rek mooy barab bi fii lu fi nekk ñu mën a caa fexe barkelu loolu mooy leen fi indi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di la sant yow it suñ Mame Balla ci sa pësteef ak sa taxawaay ci communication bi ak ñi nga xam ne ñoo ñoom nga àndal ak ñi la ciy jàppale ñëpp ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex te yàgg a fekke koor gi te ànd ak tal te yokk xewal yi jafe-jafe yi nekk foofu yëpp ñu mu jeexal ko ba mm, taalibe yi am ay milliards yuñ mën a indi Tuubaa mën a liggéeyal sëriñ bi te ñu fekk lépp barakati xaalib rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu